lay teema jóg sëriñ bi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell te gën a ci nuyoo yi di jottali nuyoo son excellence monsieur le président de la république Macky Sall di ko jottali sëriñ Muntaxa Bachir Mbacké bi ñaan sa borom yàggal ko fi te mu ànd ak wér di nuyu njaboot gi fi teew yépp ak mboolem kilifa diine yi nga xamante ni lim leen lim nañ leen léegi te ñu teew fi di nuyu tamit mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yépp sëriñ bi ñu ngi am mbégte teew ci bis bu màgg bii teewal fii son excellence monsieur le président de la république i sal ànd ak sama ay naataango Serigne Ablaye Mbaye Peex mi ngi leen doon lim léegi ñu ràññee ci sëriñ mbay Thiam di ministre bi président dénk wàllu ndox ak assainissement ñu ràññee ci tamit suñu naataango Abdoulaye Seydou Sow mu fare ci lépp loo xamante ni mooy wàllu urbanisme ak logement ñu ànd tamit ak Abdou Karim Fofana muy topp lépp loo xamante ni moo jëm ci wàllu plan Sénégal émergent ñu ngi ànd tamit ak suñu naataango Mayacine kamara nga xam ni li jëm ci wàllu saxaar yi moom la ko président dénk Diène Farba Sarr mi ngi ànd ci délégation bi monsieur le ministre te président dénk ko li nga xamante ni mooy pôle urbain yi te ñu gën cee ràññee dëkk bay di jam ñaajo ak gis liggéey bu rëy bi nga xamante ni mi ngi ko fay def ci ndigalu président de la république Macky Sall. ñi ngi ànd tamit ak ay ambassadeurs itinérants Serigne Fallou Fall mi ngi ci El Hadj Dia également mi ngi ci ñi ngi ànd ak ay honorables députés yu bëri ñu mën cee tudd les honorables Adji Mbergane Kanouté waaye tamit Soxna Dieng Mbacké nga xamante ni mën nañoo waxte te duñu juum ni ñaari taxawaay la taxawee fii muy taxawaayu bokk ci kër gi waaye tamit taxawaayu soxna bu nekk assemblée nationale gouverneur région bi muy ba dara Mbengue teewal fii président de la république ak gouvernement bi yëpp mi ngi ci délégation bi ak préfet wu Nioro ak ñaari sous préfet yi ñu tudd léegi muy bu paw Paoskoto ak bu Medina Sabax muy ndey ma jigéen Diagne ak Ousmane Thiaw chef de service yi bàyyiwuñu kenn ñëpp président jox nañu ndigal ngir ñu ànd ak ñoom ñëw teewee bés bi ñëw ci bis bi nag dañ ci am mbégte mu rëy bi ñuy jóg di ñëw président yàpp ñu ngir bu ñu ñëwee teewee bis bi ànd ko ak yéen ndax ku ne xam na ni soxna suñu maam soxna jaara fu ñu ko tuddee xel yépp dañuy dem ci jikko yu rafet ak pas-pas waaye day dem ci mbaax ak jaamu yàlla ndax ni ko sa waajur wu baax wi sëriñ Mouhamadou Bachir Mbacké melalee ci minanul baaxil xadim dafa wax ni soxna jaara di Mariama Bousso dafa doonoon jigéen ju baax te sel jigéen ju am diine jigéen ju bari lu muy jaamu yàlla ci ay julli woor ak saraxe sëriñ Basiru teg ci ni mu doone nit jigéen joo xamante ni dafa sàmm wonte woon digganteem ak boroomam waaye sàmm wonte woon tamit ak digganteem ak ki ko yàlla booleloon daan yar njabootam ci diine di leen nettali dund gaa baax ñi ngir ñuy mën a ñuy mën leen a roy te nañu nekkee woon loolu mooy waxi sëriñ Basiru ci Minanul Baaxil Xadim kon sunu maam soxna jaariyatullaahi ndam la ci bépp jullit rawatina ci bépp murit ndax jikko yu tedd yi mu làmboo woon ak taxawaay bu am solo bi mu taxawee woon ci wetu Serigne Mamor Anta Sali Mbacké ci topp ko ak liggéeyal ko moo tax tey kenn natablewul ni royukaay bu mat sëkk la ba tax na foo dem muy fii muy ci àdduna bi rawatina nag ci poroxaan ay turandoom lañ fay fekk ñu leen di yar ci diine lislaam tàggat leen ci jikko yu rafet yu ñu gërëm ñu doon ñoo xamante ni ñu mokkal ak a wattu arxaan doon moo tax euh, mbégte moo mu rëy moomu nga xamante ni yaatu na ba wesaaru ci àdduna wi ñu gis ko ci ay turandoom waaye gis ko ci ci tamit bépp jigéen boo xamante ni yaa ngi roy li nga xamante ni moom la nekkee woon moo tax bu ñu ñëwee fii du ñu mën lu dul tàmbali ci sant yàlla ci bokk gi ñu bokk ak yéen bis bi te ku ne xam na ni tamit sëriñ Touba fonkoon poroxaan la te fonk gi mu ko fonkoon taxoon na mu fi daan yabal sëriñ Basiiru mu daan fi ñëw ci barab bi di fi dundal ak a ci jaamu yàlla loolu di wéy jaar ci jàmbaar ju islaam ju mag ku ne gis na liggéey bi nga xamante ni sëriñ Moustapha Basiiru tàmbali na ko fii liggéey boobu Serigne Bassirou Serigne Touba santoon ko dafa wàcc ñëw ci Serigne Moustapha Bassirou mu wéyal ko ba ci Serigne Mountakha mi nga xamante ni moo fi nekk te ku ne xam na yitteem ci dundal bërëb bi waaye ak di ko yeesal ak di ko taaral ak lépp loo xamante ni Serigne bi namoon na ko mu nekk ci kon du ñu mën lu dul wax leen ci turu président de la république son excellence Macky Sall. ni mi ngi feddalee kóllëreem bu baax a baax a baax a baax di tamit di leen ndokkeel ak di ziyaara sëriñ bi ci bis bii ñu fekkee wat ci jàmm mi ngi leen di santit bu baax a baax di leen gërëm ci seen taxawaay bu mat sëkk bi ngeen taxaw ci kanamu jaboot gi di dellu di leen sant bu baax a baax tamit ci ñaan gi ngeen di ñaanal réew mi te lépp ñu ngi koy gis nit ñi di ci teg seen bët di gën a sàkku ngeen ñaanal ko yéeneem àgg ci réew mi suñu boroom def ci senegal yi gën a yokk sax lay wax ci senegal jàmm ak xéewal waaye defal ko réew yi nga xam ni yépp ñoo ñu wër ak fépp foo xamante ni jullit mën na faa nekk ci àdduna bi di nag laata may wàcce sama kàddu di ñaan ngeen ñaanal ko ci yan bi nga xamante ni yan nañ suñu borom yan na ko ci fan yi weesu mu nekk président Union africaine di ñaan ngeen ñaanal ko mu am ci lu kawe njortam liggéey ci liggéey boo xamante ni lépp luñ ci doon xaar ci jàmm ak ci defaru ci biir Afrique suñu borom defal ko ko bi jaay Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. lay way fi ngeen jilin seewey a ñoo ma jëmmalul boppam soxna Jaara